Serigne أبي بقى أبي بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا ينظر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا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 uyoo bi nafsi bi in minka yaa Allaahu yaa fi janna bi durra ma kadaarin waabliyal amna fi daarayni yaa wa bil mu'aymini lis abistiraay kama xaditu sirran ilal جماعتي يا الله أنت العزيز الأسي أقيم بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترته يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي لاخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر الكل يا الله يا خير خلق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسبي والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سم وخند الأجر للجماعة يا الله أتى المساور قلب للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله خلقت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد سكريايا وابح يا الله خلقت لي كل سن بالغاد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خانت لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبحى اللام لغوت أزمان اللج يا من له أموره وغوت لي رصايا رساه في اللام فتات لي كل بعث بن كنت ذات لأوليائك يا فتاة يا الله علمت للقيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نبيك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 غفلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رفعت يا رافع دارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رفعت والثبات بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبات بلا انقطاع بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا ستعيسة خلال ويسا واحد بل فيك يا علام أنت المسل لاسي سلالي ستي الإنس والجن سيطان يا علام أنت سميع لاسي ناجت سمانا وبالمصارات لي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 ginnaaw bu ñu sante suñu boroom sant sëñ Touba sant sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou suñu yaakaar tey ak ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di leen di leen ziar te di leen euh, sant ci ànd bi ñu ànd ak ñun ci ziar bi nga xam ne moom lañ doon amal fii ci daaray Lagan fekk fi sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou sunu wasila di sunu yaakaar tey ak ëllëg ziar bi nag li ko sa sabab mooy dañ doon faral di woo mbokk taalibe yi ci liggéeyu tool yi lu mel ni xel Xelkom Lagan ak yeneen tool yu mel noonu euh, booba léegi nag mbokk taalibe yi doon sàkku ak ziar ci ku baax suñu borom dogal ko ñu yaatal ko nag par sëriñ bi mu fekk ko Lagan ñu ñëw amal ko fii ci fekk ko fi siyaar ko mu teeru ñu nag teeru boo xam ni ku ko gis xam ni sëriñ bi li sunu borom ne wala xat karam naa bani aadama moom ku fi ñëw maanaam ñu gisee fonkel bu mu fonk nit ñi nga xam ne ñoom la fi teeru ak ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ak ñi fi nekk di fi yëngu muy ndongo daara yi nga xam ni sëñ bi ci loolu képp lay dox woo bi nga xam ni moo sabab sax woote bi ñu woote fii siyaar bi muy woo liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal ci tool yi bu ñu ciy woo it maanaam yërmande jaam yi ni ko Serigne Saliou nammee woon moom la koy wóyalee moo tax mu koy woote ba léegi ndax tool yi saa su ne dama naan ñu ko toppatoo ba ñu yegg fa ñu yegg mën nañ koo lijjanti waaye bu woowee jaam pour ñu ñëw liggéey si di na a yéene taw feex képp moo tax tawfeex googu mu leen yéene nag moom moo waral ñu ci sunu xeebu ak liggéey bi ni ni ci boole mu am ñu am di woo ay mbokk taalib ñuy ànd ak ñun bu lu mel ni amee muy siyaar képp koo xam ne daan nga dem ci tool yi rek yaatal nañ la ko moo tax mbir mu yaatee yaatoo yaatoo nii eh, di ko ñaanal nag sunu borom yàggal ko fi lool mu yàgg ñoo woo ci tool yi bépp waar boo xam ni euh, namm na ko bay ci waar wii nga xam ni moom la ko waajuram wu tedd bi Serigne Saliou bàyyee ak Cheikhul Khadim di ko liggéeyal sallallahu alayhi wa ak sunu borom ñu ngi ñaan yàlla nañ ko yàggee àndee ak moom tey sant nag mbokk taalibe yi yëpp ñu ko dalee Ndar Tiwaawan Thiès Sébikotane Pout Pout Diobass Ndakaaru gox yépp Pikine HLM benn tali Masaalikul yi ñi ngi sant ñëpp ndaxte wax dëgg yàlla suñu xeebu waroon naa tax bu ñu leen woowee du ñëw waaye fépp saa bu ñu gëstoo gis leen ci tool yi looloo tax man nag dama ne ginnaaw loolu am na lu mel nii su amee dañ ko yaatal ci képp koo xam ne rek sonn nga jëm ci tool yi yàlla defal na nag defal nañu nag mu yaatu lool ñuy sant sëriñ bi bu baax nag di ñaan mu yàgg fi lool te wér ndax lii moom ku ko gis am ni sëriñ bi fonk na doomu aadama fonk na taalibe ndax terte gii moom terte gu rëy nii ak yitte bu toll nii sëriñ bi am ko jotaay bu tol nii bi mu am ñun tey moom wax dëgg yàlla man musuma koo am ak moom waaw jotaay bu guddee nii nga xam ne day toog jël temps am déglu nit ñi seen mébét ba pare mel ni maanaam képp ku toog rek lépp loo xam ne ni nga ko ci tawat wala soxla wala loo xam ne yitte la ju ne ci biir xol da koy da da koy natt ba xam ko jotaay bi doog a yëkkati loolu moom ñu ngi ko ci sant tey ñaan mu yàgg si lool te wér ñu yàgg amal siyaar bi nag waaw waaw loolu daal moom moo waraloon tey suñu tànk fii ci lagan di ñaan nag suñu borom defal ñu la gën ci barkeel Serigne Cheikh jërëjëf siyaar nañu wér a wér salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ñaanal yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm ci bés bu tedd bi nga xam ne teewee si nañ ko muy ziar bi nga xam ne moom lañ doon defal Serigne Cheikh Amadou Mbacke moom Serigne Salihu di am mbégte ci biñ ko fi fekkee ak dalal bi ak wàccuwaay bi di leen masaw it ci coono yi ak yoon wi ak naaje gi waaye lépp rek ziar si jar na ko ndax liñ dële ci ziar. jar na dem fii ba siin wala fii ba Mauritanie ngir ziyaare ji nitug yàlla waxoon naa ko ci communiqué ba ne ñëw fii sëriñ bi ñaanal nu xool nu bëti yërmande bi moo gën ci ñun lu baree baree bari lu ñuy yàq suñu suñu waxtu wala suñu jamono waaye li ci gën a am solo mooy teew gi mbooloo mi teew ci kanamu sëriñ bi te sëriñ gile mi waral ko sëriñ jili nag yàlla moo dogal ñuy ànd ci tool yi xel ko mi te lépp di liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te caaxaan wala daray ñàkk Pastef wala daray wut daraja nekkalu ko ci da koy def rek ngir jëmmi Serigne Touba waaye da koy def ngir jëmmi sangam bii di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou adduna nag luy wéy la te jëf ba jëf jeex jëfal Serigne Touba moo ci dàq te it moo ci gën waaye li ci ëpp solo nag mooy nga di ko jëf ba noppi nag te yàlla rek tax ak jëmmi Serigne Touba te loolu moom mii la Serigne Djily mi di def ak mbooloo mi mu ku ne xam ne tey li fi ñëw ci ziar bi mat na juróom benn téeméer nit ci niñ ko calculer mbaa boog mu ëpp ko sax waaye loolu lépp rek ci taw tawféexi sëriñ bi la amee ndax moom mii léegi daf maa wax ni ma waxal sëriñ bi ne ko du ma dara ci liggéey bi dama bëgg mu leer ko ni lépp moom la ba li ma jëf sax ñu jàpp ne maa ko man di ko jëf sax nañ xam ni moom mii moo ma ko man loo ma mën koo jëf waaye bu ci génn woon loxoom du ma ko man kon nag maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm am murit nag su bëggee dem du geesu ci ginnaaw lu mu jëf rek day jàpp ne ab tàmbali la ci moom saa bu ko sëriñam waxee jërëjëf it mu jàpp ne ak der la gum ko takkal ngir mu war a jóg dem liggéey li sëriñ bi loola nag moom la ñuy jàppee cant yi ñu jëlee ci sëriñ bi tey ak ngërëm yi ñu fi jëlee ak xol bu sedd bi nga xam ne am na ko ci mbooloo mi di wax ni rek nañ gën a waat laxasaayowaat takkaayowaat te xam ne li ñuy liggéey kat sëriñ tubaa mooy tàllal loxoom ñu teg ci ndax sëriñ bi moom ku ne xam na ni ci sëriñ tubaa la ne ku néew ay nawle la ci yoonu murit ndax doxalinam bari nay bokk nag waaye nawle la néew la loolu moom sëriñ Cheikh ndox doxalinam te loola yem ci sëriñ bi tàmbalee ci sëriñ bi loola rek mooy mbiram kon nag ñu ngi wax ni sëriñ Jili mii yombal gi muy yombal murid yi ñuy ñëw ci tool yi Xelkom yi di ñëw ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ Touba loola ñu ngi ñaan yàlla moo gën koo man ci diggante ñaari bant yi nga xam ne fi lan toog te sëriñ Saliou daan fi def ak njowaanam ñu ngi ñaan ci àqi loolu ak dara jaam yàlla na ko sëriñ bi tëbb doole yi biir ci wërfëg ci kartan ci fan wu gudd ci wér akum xel ak sago ba lim bëgg a liggéeyal Serigne Cheikh Saliou Mbacké mu liggéeyal ko ko ci dara jëy Serigne Touba defal ko mbooloo mi ànd moom nag di ñëw ci tool yi mbaa ñu am yéene mbaa ñu bég ci liggéey bi ziar bi nag li ko waraloon mooy kuy ànd ak nit di dem sa kilifa di la woo di leen woo ci seenu tur ngay ànd ak ñoom te li ñuy def dara waru leen ci waaye lu dul bëgg Serigne Touba ni nga ko bëggee ñëw ànd ko ak yow amel nga leen njukkal amel na leen cant amel na leen jërëjëf xam na nag cant gi da cee lott ci doole lool ndax bu ko sëriñ bi dee woo mbooloo mi ànd moom ñoo tax bu sëriñ bi dee am ci moom ndam ba di ko xool di ko wax jërëjëf mbooloo mi ànd moom gi ñu ci tool yi ñoo tax su loolu dee am nag tam lottu ci sant leen lottu ci gërëm leen nag dana leen indi ci sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Amadou Mbacke mii nga xam ne tëlewu dara tële mi def sëriñ Touba moo tax mu di ko def mu indi ñu fi mu waxal ñu boppam jërëjëf ñaanal nu yàlla mu yokk nu te defal nu sutura ci dara yi sëriñ Touba loolu daal moo waraloon jotaay bi di sant nag ñu jóge Ndar di sant ñu jóge Dakar di sant ñu jóge Pout ñu jóge Pout Jobaas ñu jóge Thiès ñu jóge Njaaréem ak fu waay mën a jóge Tiwaawan Sébikotane Kaolack ñaari tali benn tali bàyyiwuñ kenn fépp fu waay jóge ñëw si ziyaar bii ñu ngi ñaan suñ borom faj say aajo te jubal say mbir te jox la xéewal yoo mën a liggéey Serigne Touba te yokk suñuy fan te wéral ko ta ñu yàgg fee fekk Serigne Cheikh Amadou Mbacke moom Serigne Saliou ak njabootuk Serigne Saliou Mbacke gépp yaa latifu yaa muhaaba يا من له أمر الورى يا فافا يا بر يا لطيف يا موافق يا من له أمر الورى يا سافق عند التفاعك ما كان دينا ولا تؤملنا بالابتلاء وأمثل النفع ما كان الضري وأمثل الخير ما كان السر وأمثل العلم ما كان الجهل waan silil jooda makanal buxli waan silil xinaa makaanal faqri wa amsilin sukura makaanal kufri wasfi jami al muslimina ajila summa qihim xafan wa husnan ajila wa najihim wa haafihim waltuf bihim wala tuwaqishum bi kusri sanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yusriku bika adwa wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dofin yasaru qulubuhum laysa tamilu أبدا إلى سواك من هنا إلى خدما لكن ما تلفظ الجوارح أفداهم لأخبي الخبائها ولا توقسم بما لا ينغزها ولهم أبي الذي لا ينفع سنت قصيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام ما سافل وكل ما أردت منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك بارك لي يا ربي في أروفي وخيرا وجدت بالمعروف ملكتني ملتني بكونك الكريم ما خادني تفسير وتكريما أعطيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدريمات السلام كافاني مما لو كف عن آت بما لخيري ساخ كل من جات أكرمني bi qul huwa allahu ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad najaani allahul mukarimu samad tanaajiyan bi kafaani alkamad wa jaali alakramu anfa alkaram wa darari bi xayri raddin lin saram asalo kawnati alxasida خارقة عادة مفيدة يا حي يا خيوم سل بسلام هل الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل الكلام من على خارئ سيل أروفي بما يفوق السنة من مهروف لناسم الحروف خالد ربا يا من كفى الخير والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مكرم يا ما جاك عبدك الخديم ساسرا مسلما على مصح zil xula naajaaka abdukal xadimu saasala musalliman ala musa zil xula sëriñ saali sëriñ saali rijaal